USA Canada Switzerland ak àddina warngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina warngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ci ñetti fuk ak ñent deka si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën ci jotum xaaliss bi nga xamne kenn du ko laam leen ñu ci Google Play Store wala App Store ngir mëna bindu ci suñ app bi di Supersonics Money Transfer app da ngeen mëna a ci suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics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 ani alhaji ibrahim ba mama koto se seattle washington ate be vancouver wala na la len lungo men wala be kala juma lungo ti eh, juma lungo wuraro janna wato tala lulu nin tala wuraro kada tala woro eh, allah madu kuni maka na lafida ka jube fanan albetala min do wala mu gambian talents tv ala barika asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani amoon yar la bañ na ko ba def ma defoon comme maamam su ay fo sa dafaa ñëw toog suma boor. amoon émba bugg a dee pour yaayam ak baayam rek loolu rek ko yóbbu woon ay naa ko na rek sonn su doon man rek dem waaye xëy na la yàlla tudda parce que rek maa taxoon ma bëgg a dee waaye itam sa koy bëgg a parce que ni ma nekkee rek moo tax ma bëggoon a tukki dama ko ay ba sonn su doon maa rek du dem waaye wax wax ne yaa bàyyi rek ma dem ma taxoon mu dem si gaal yi xale bi dipi bi ma ko amee ba léegi nekk sama doom bu baax déggal ma lu ma ko sant rek loolu lay def si sama ndigal rek lay wéy waaye nag keroog bu muy dem waxu ma dara xam naa yóbbaale rek moo ko yóbbu ndax man musuma xalaat ne dina am xalaat boobu ndax soo waxee rek mu ne man bugg naa dem waaye sama yaay laa yërëm kon soo gisee mu dem dafa gisoon moroomam yi di dem rek loolu tax mu dugg ci ndax nekkul ne maa ko jox xaalis bu tuut joxu ko te moom xam na sama denca yóbbu lu ma dalasi bu gën tuuti sax yóbbu ko waaw ana santa yalla rek student la won mu ngi dem school ñu dundon comme ne nit di dundé ak njabootam rek ku bax la ku am yermande la ku am wax ak nit la ku am respect la tamen mom dal xam ne nit wara mer mel rek mel na ko. suma liggey gi yeb mom la moma ɗon defaral neg elbi may jaay moo ko de hoos bo pare doogo dem uscul dawde hana baa rek ak jullit jullite halila waya a faham diine ba pare baa yërëm ma tamit lii yëpp si yërëm ma moo tax moo waral lii yëpp si moom baag wee bi nag bu mu demee ba pare laa ko yëg bu mu demee ba pare yëg naa ne dem na baag wee wax dëgg yàlla ba taka dama ko laaj aali diallo mi mu ne ma ah xam naa daal suma booy bi daal meer dem na ma ne ko dem mu ne ma am lu ma métti lool ma ne waa Omar dama uti baag wee mu ne ma ah Omar de dem na ma ne ko mbaa yaayam yég na ko mu ne ma ah xanaa bu demee ba egg dina wax ak yaayam mu ne ah Omar de bëgguma woon mu dem baag we na waaye nag yan na ko yàlla defal jàmm fam dem yan na ko fa yiwu yàlla tàcc Omar moom bu soobee yàlla jàmm rek lay am parce que Omar ku baax la wax dëgg yàlla yal na ko yàlla ubbil bunt loolu laa wax alimi nii. waaw because man moom daf ma déggaloon trop trop trop trop loolu moo ma gën a naxari nag daf ma déggaloon respect ma lu ma ko sant mu defal ma ko waaw so ba pare nekkul doxkat waaw nangu na jàng jàng na ba jeexal ma utal ko job trial ko ba mu am job waaw so job boobu nag si la nekkoon yàlla def mu ñëw dugg ci mbiri baagu bi nii téye na ma téye bu rafet déggal na ma yaru na léegal na ma billaay wallaay daba kañ ma koo fay yàlla rek moo ko mun a fay su ma ne daba lii rek mu génnee jox ma juboo naag man du ma xuloog man du ma lu ma ko wax mu def ko waaw dund bu rafet lañ doon dund fii si néeg lu ma ko ne boo dem du dem waaw bariwul càmbal càmbal nii li xale di def déedéet bariwu ko waaye bu kay mu doon dunda ak man dunda bu ne maa ko yar yu bam nekkee xale bi mag jàng school ba nekk grade twelve mu si suma loxo defut ma dara xanaa buga ma rek waaye bu kay xanaa di ko gërëm di ko sant ndig moom mu doon def grade twelve waaye after bi gaal yi commencé di dem mu say ni dafa dem li ñoo wax yaay ak doom rek mu toppa ma rek bi ma paasal ko yàlla nit jàmbi ak li mu bugga yàlla ak li muy dogal mu ñëw em si noonu gaal uus la borom gaal bi tudda move up si lañ dégg ne am na ku war eb ñu dem si kiram ñu laaj ko mu ne waa dégg la dafay eb ñu laaj ko ñaata mu ne thirty five thousand la muy ebee si lañ dem ñun tam ñu dem fay ñu waxaa moom ñun ñett ñoo àndoon man ak ifo ak suma xarit ma ñu dem ñu fay. yéen ban bés ngeen jógee fii. 27 novembre àllarba si guddi. fan ngeen jógee. ginnaaw ju nag si yooni ginnaaw yooni ju nag bi baara fële si ginnaaw foo dee aw pour dem ju nag. mën nga ñëwoon ñaata nit moo nekkoon si gaal. gaal bi lu fa nekk ëpp na 200. ñaata xale ñoo fa nekkoon. xale yi five xale ñoo fa nekkoon. Hmm. doom bu ma gërëm la. doom bu ma gërëm la. bugguma. iram, mo. Iram na mo. trop Ko deug yàlla Bim demé ba légui dé manuma ko joy waaye so ma laajee loolu rek sama yaram dana daw ci pas parce que yërëm na mo. Suma togan mu ñëw tok kan, suma pegg Suma togan rek mu ñëw tok suma pegg di waxtaan ak man Masun ma def lu ma naqadi ngi koy ñaanal yalla rek yal na ko yàlla te yéexe ñu yàlla xare ko àjjana yàlla bu mu xam fitna fenn gërëm naa ko de bëggoon na ma yërëm na ma ba buggel buggel gu ma bëgg moo taxoon ba ma waxee yoonu gaali ma ne ko bul dem si yoonu gaali jaral na ma lu ñu rek ñu boolante ko xaw doole waaye lu ñu xam rek ñu boolante ko waaye nag xaj na yàlla moo doxalee noonu doom bu baax la de. eh kooku suma raga bu ma bëggoon la. jox ma cër dañ dañ dañ bëggante woon maanaam moom maanaam moom benn leen woon mënuloo xamee si ñun ñaar yére sax su ma mënuloo xamee si yére yi moom moom yére bi wala moom moom mboo bi nii ñun ñaar benn leen woon ñun ñaar benn benn leen woon ba pare dañ bëggoon si yaay dañ ko daan dimbale depuis ñu nekk xale xale yi ndaw suñu yaay dañ ko dee dimbale daal mu nekk ba ni ñu nekkee mag loolu dañ ko dee dimbale soo gisee nag Beda misi yona kan bi tamen am gare buka di ko waju sa buka ak lola. Ko aru dara wa Buka di mesa waju ri ak buku dara rek. Waye dam xaru. Du dam dafi lenen dam rek pour ut dara am dara. ñu tera sa waju ri lola rek moko taxono. Ali wilan tas da am lu bari si moom ta et suñ everything dal, dal maa ngi am jabar sa waaye su ñëwoon dama noo wàccee benn man laa ñu tëre si benn suma jabar fere xam nga ni style ba ni muy waajee sax maa ngi moom ñoo doon waaj parce que man de war naa pripia pour ñu man dama kanam dal, ma am benn gàllankoor bu ndaw afta gi silaali silali laas ma ne ko waaw yow si demal sa saa seetule rek fa man su ma paree rek lu man di xew rek na na anytime mën naa laa fekke foofu. maanaam bu mu doon dem yéen ñaar yi na ko waxtaanandoo. ñun bokkoon waajoon nañ daal maa ngi moom ñoo waaye si gannaaw loolu daal ma am benn gàllankoor bu xala gàttal rek ma ko ne waaw mu far man moom saa yu ma setulee rek maa ngi sa gannaaw. mën nga ñu wax yenn kàddu yum la doon wax balam doon def. waaw ma doon constat dañ doon jocoonte ay xalaat rek suma constat dund bu métti buñ nekk di dunda fii rek di liggéey sumay doo mën indi dal fil sa dal daal ba bokone su lu gën tax dal presque so mu ngon ci job ko rek presque mu ngon liggey façon sop ta dama na ba nek ci bunta am am dal wa still na lu muy dund ci rew bi dal dafa melni happy wu dal motax mu bugg a loos daal wa na gay yi ne dafa dem yee yee wax na ne ko yow juróom bu góor ak bu jigéen yëpp yow lan nga ñu mëna wax ci ko kooku xam naa ne comme am ku baax la woon ndaw la boo xam ne comme ku dëggu woon daal. ndawi dëkk bi dafa am loo leen di defal man moom ñaanatuma yàlla moom yooni baag bi te ku ma déggal tamit doo dem waaye nag comme jàppale bi daal ngeen dimbale ñu si bu baax a baax a baax métti na trop waaye yëpp ñu teg ko si loxo yàlla. very kind. buga family, buga am kami, yi especially man dañ dan tok jotay dañ na geto di tok ñu him, ataay di nan di kaf di re mama magé yee ma euh, joxon ko cër lool nak mom tamit mu jëlon cër bobu ñu xamne ñun ñaar ño bokkon ana sanga mu nekkon mag bu baax amon taxaway bu baax don ku gëm bopam nak bëggoon liggéey fonk ko trop looloo taxoon mu jël yoon bi pour dem dafa gëmoon boppam nekkoon koo xamante ni ku am ku am ak jàmm ak nit yi la foo ko fekk moom nit yi ñu ngi toog di kaf di ree soo ku baax la woon mungi mungi dëkkoon ak man ci jàmm mungi dëkkoon ak man ci jàmm ñu ngi ko mu ngi nangu woon itam kilif tànge gu mat sëkk ci la ci la toogoon ak man ba néew yi néew yi ba soo demee ci gannaaw am na néew bu ñu fa tàmbali tabax sax moom moo ko moo ko tàmbali woon moo ko dooroon xam naa mu ngi doon dem pour comme ni xale yi demee rek réew mi daanaka euh, koom-koom bëriwu fi te xale yi li gën a bari suy ku ciy dem ñaare jom moo la moo la tax di dem jom bi mooy eh, bëgg nga tekki dara mën a jëriñ say say waajur waaw waaye mbir mu ne ak fu yàlla jaarale rek. nanu ko bu mu nga toog rek jàppa yàlla yàlla baax na su yàlla tuddee ne yooni dëkk bi nga ko di fa jaar di nga def waaye lii moom bu la dalati géej dafa miiti torop géej moom topp man mi yaayam sax ñemeñu mag bi waaye ni yàlla tudda moom ala kulli aali foog mu ñu wér ko si yoon yàlla rek yàlla baax waaye ñu dimbale ñu rek ñu mënuñu am dimbale de baax na ban nga xam ne yow sa doom bi gaañu parce waxoon nañ ne waxoon nañ ne dafa gaañu. waaw waaw moom bés la de. moom de suñu dëkkandoor moo doon kool jarbaatam si gaal yi eh, fale nga nekk bari na mu ne ko waa bari na ay nit ngi toog fii ñu ne ko ne la amul ku tudda foofu Seexu Siise mu ne ko ah kay ma seet ma laaj noonu la laaj ñu doog maa wax ne deew waaye fekk soo na naan ñu ci woon na trop expliqué nañu moment yooyu nu kañ suma high blood bi sa daaneloon na ma ba tuutee des ma dee balaa jaar nag bàyyi diw ba tey boobu kañ duma ko mus di faate moom wax dëgg bés dëgg sant yàlla nit e na trop gaal gi kañ su ñoo wax affaire moom daf dee mel ni tey si ma parce que lu nit lañ fi daj ñoom ñoo coono de waaye ñu ne luñ fi daj ya voilà nah. bu baax bu ma déggal mosuma koy wax mu tek si baat waaw nah, topp sama ndiga rek waaw nah, lii la yàlla dogal nag waaw metti na lool waaw mënuma si dara yàgg naay bëgg dem nak ma koy tere rek mu dom bu ma bugga dom bu am njëriñ dom bu ma yërëm rakam rakkaam bugay magam am njëriñ torop féetewuñ wuñu fu nek ci biir ak piti yeb ñu fekkee ñu fa wa lima nama si mom bari na lu ma doon jëriñ lu mu doon jëriñ njaboot bi magam yeeg rakam yeb kañ parce que amna na suma ben dom boo moko doon jëndal sa yére koku léegi duma ko dee jëndal sa moko doon jëndal waaw su ma amee ko kolé rek jéet la mu jot ma jot si di ci wàllu dunda bi di ci wàllu suma soxla yépp moom ko doon defal waaw. metti lool jaaxle lool tit si lool ndax yëguma si dara ñaana lool leen yëgoo si dara xale yi moom xam nga bu ñuy dem doo yëg bu ñuy waaj doo yëg fuñ toll rek ñu ngi palaan seen yoon di ko nëbbu seeni waajur waaye yoonu gannaaw waajur wu ko yëg doo si d'accord waaye yëguñ si dara ñoo passal seen bopp ñu lijjanti seen i mbir ba seen dem jot ñu jóg dem tàgguwuñ kenn waxuñoo kenn dara doon nëbbu rek ba yàlla dikk ak dogalam. bàcce nañ ma benn bés daal asil ma sama gerte gi rimal ma ko fii <clears throat> ma leen daaw léegi la seet leen li ngeen bëgg ma leen ko sama xol sedd na guy tal leen si loo ma ñaanal leen ba ma leen waxee loolu pare takku saan kee lañ daw kët gi kenn kenn mu ngi doon tëddi ci mama mama Ndiaye xayet doom ba ñu wax moom koo ko bañu sa waaye ko bëggoon a ko yóbbaale ba benn bi bàyyam na ko yow kii soo ko yóbbaale man kii laa am ku may jàppale bàyyi ma nga bàyyi ko moom daal ñu dem boobu lañ daw kët gi nangu duñ fee nekk di daw kët gi rek duñ fi lekk duñ fi defee dara nekk ñu ci pare pare waaw daa ay doomi ndey nag ki doomi bàyyi lañ ko waaye kii bokku ndey ki benn suma benn jawal moo ko ki benn jawal moo ko jur waaye suma benn dërëm demut xaw ma ci xalaat xaj doom yu baax doom yu xam yar doom yi xam teggeen def amul benn mbosuur liggéey lañ xam toog ci seeni weti waajur di liggéey ndax niñ demee liñ demee yëpp ñoom ñoo ko liggéeyal seen bopp te xale yu ndaw lañ masu ñoo xam ñun benn problème wala benn jafe-jafe waaw am nañ yar am nañ teggeen duñ xuloo duñ xeex waaw ba yàlla dogal ñu àndante ñoom ñëpp di dem yàlla dikk ak mbiram dogal lim dogal waaw amuñ benn jafe-jafe suñ xale yooyu amuñ benn jafe-jafe amuñ benn problème xale yu baax yu takku yu nangoo liggéey jóg pour dimbale seeni waajur rek xam naa moo leen yëkkati waaw ndax xale bu fekkee ne yaa ngi toog ci sa waajur di daw service am buggal ko jàmm yéene ko jàmm loo xam rek ne ci kanam pour seen waajur yi rek moo leen taxoon a jóg dimbale seen waajur yi teral seen waajur moo leen yëkkati woon loolu moo leen tax a dog soobu ci yoon wi. parce que benn la woon suma xol doom boo xam ne dafa def comme maam daf laay toog di kaf soo waxee dafay ree rek su ma ree mu ne yaa mu ñax rek yàlla baax na di nga noppale ko de foog ma teral la rek da nga teral bi lii laay mujjee waaye soo xam doon am rëcc du am ma xamoon ne su demee du ñëw wallaay du dem te kenn paasal ko maa ko paasal waaye éem la amoon nag parce que moromam yi di dem rek mu xam ne maa ngi denc xaalis lu ñu wax rek dara na naxari wu ma sax parce que Younouss bu gaañoo ñu bari dañ ne fu mu jëlee paas parce que xam nga yi ñu si wala kaada ngay dee loolu rek moo ma naxari te suma doom yi maa ko paasal si xaal bu set wécc maa ko teggi liggéey ko jaay suma genn waal yi bay yëpp paasal suma doom bu dem waaye loolu rek moo si naxari parce que ñu ngi fa ne aw ma dara jur a ah yàlla jëlu ko lo mi ma def dafa ñaw rek am nga xale bu buggee def dara do wax do wax sa yaay dafa bu bu dem bu demee ba fay yéeg mu soog a waxuma ma yeguma niti mo xamut ku amul mané yaaya moko jox yaaya moko li lii da ngay muñ parce que yalla jël na ko ba paré fo nga muñ xaalis bi mu jël ci ci nit yi ma fay ko yëpp ki mu dem lebal ma bu demee ma yegg ma war suma yaay mu fay leen wala yàlla jël na ko ki mu yoral ma fay man maa ko jur man laa bugg dimbal yàlla jël ko ma bugg mu nekk foofu jàmm ak salaam ak doomam yi mu baayal bul halat sadomi sa doom parce que man deuma man may sen yaay bul halat sa doom yi tiira bul bi nga nek fi man may tobato nga am demna du du halat dara mhm. be ma fekala tiara jana arjana bi ñu bu demee nga fekk ma fekk la al maa la jur It's a very good girl in Bara here. Everybody knows Tida very well. Anywhere I move, I move with Tida. Anywhere I go, I go with Tida. Anywhere I go, I go with Tida. The, thing, the time the boat want to move, he meets me inside my room, told me, okay, I don't want Tia to know. Only you, as my blood sister, will tell this. Please take care of her for me. I said, I don't want you to go. Take care of her for me. Don't allow anybody to know this. Take care of her for me. You are like my blood sister. Me and you see how many years. I cried. I don't know what to say. Jen at Jenak. At Jenak Hotel. Dega you know, especially boy pay Agui. So I just heard it like that. léegi bi ko déggee yow noo def. waaw bu ma ko déggee after ma toog xalaataat you know xam na ne bëgg naa génn dëkk bi you know si la join gaal gi pour dem Espagne you know. biñ doon dem da nga xaalis. dama fay xaalis kay bu ma dem. si kan nga fayee. si Ous laa fayee Ous Ousmane Ba move si moom laa fayee bu ma dem. bi ñu doon ñaata nga fay. thirty thousand dollars yi. thirty thousand yow lan moo la motivate si Bagwe insurance. lu ma gën a motivate si Bagwe insurance fii pour dem number one dëkk bi neewut job amut dara amut you know so te yaa ngi gis ne fii affaire Bagwe fii dafa nekk loo xam ne nii fii si dëkk bi you know parce que comme I can give you few examples you know. dëkk bi fii dañ gëmul sax even soo toogee fii nii sax di try sax they don't believe in that you know kuñ gëm mooy ku dem Europe that's the concept te soo gisee tam gars am gu that concept dañ dee gis ne ne you know waaw dangaa mun a am sa doom sax mu nekk fii mu ngi jàng ba jeexal sax mënut a am job mënut a am dara so soo demee dem baag bi pour dugg Europe yu know at least soo demee life daf dee mun a change si sa side ak sa side family yëpp su nekkee ne yow jos ligay moo la tax a jóg rek you know moo tax man tamit I was confused to go to Spain you know noonu la fa demee you know. balaa ñu wax ne gaal bi suux na bor set man ci guddi gi laa ko génta ma toog rek maa daadoo tëdd ma tëdd ba mu yàgg ma ne laa ilaaha illallaah jóg toog mu ne yaa lan la ma ne ko innocence si biir ndox bi yaa moom mu ne yaa bàyyi li nga xam ne ko daadoo innocence si biir ndox bi daadoo xam ma ne innocence lekk na xam ma ne yóbbu na malaan noonu laa ñëw jàpp julli toog jóg bu ñu ñoo def fajar rek ma jóg ñoo ubbi suma bunta bi sotti ndox dem marché ma nga ñu ne ma gaal bi àgg ma ne ah gaal bi daa àggul gaal ni ma ko gisee gaal bi àggee gaal bu dem dina àgg waaye nag bu àggee ñun ñëpp loolu lañ bëgg a yàlla baax noonu laa ñib si waaye si ba ñib toog uti ñaay ba ñëw mu mel ni suma yaram dañ ko door ma ñëw lal fii tëdda gaa ñu ne ma yaay de yaa ngee caali de waaye xale yi àgg nañ ma ne ah alhamdulilah su xale yi àggee tam baax na ndeke boobu ñu bari yëg nañ sax xale ñu bari gaañu nañ waaye ñu ma koy nuba noonu laa tëdda si biir kër gi ñu nekkee si nekkee si bi sa ngooñ si sala gars yi doog a ñëw ne ma ndax sa doom kool na ma ne ko xale yi ku la ne kool nañ dañuy fen xale yi du ko kenn koolu xanaa ñu jàpp yàlla rek yàllaa fi sës waaye man suñ na gaal gi suux na man du ma ko weddi parce que kenn koolut te man xam naa yu sa nu mel ak man parce que yu ne sa du sori yaayam yu sa su ma tëddee lu mu guddi guddi bu demee bo si booyam si sax foo mu ñëw ba koŋ-koŋ ma su ma ne ko yu sa bàyyi su ma tëddee nga koŋ-koŋ ma mu ne yaa jox ma ma naan mais ma ndox si fii ma naan foog ma ubbi bunta bi indi sa gis ma rek mu doog a dem ba nag kooku su tukkee su àggee dina la kool moo tax may la indi sa te si laa leen man de bu nekkee gaal bi suun na ñu ne naa ma ne ko indi sa dee na ñu ne hey yaay de bul wax loolu ko waaw sa dee na parce que man xam naa indi sa nu mel ak man te mu ngi yóbbu ñaari mobile su ma bas mu ngi ko yóbbu ba sax mu ngi yaayam rek a taxoon na dem et bu amoon na dimbali yaayam si la ko yàlla jëlee waaye yal na yàlla seddal suuf si kawam dana seen dee di noflaay damay sant yàlla rek julli si yonente bi di ñaan yàlla may ma xooli muñ du ma mës a fàtte sama doom moo ma féetoo fu nekka tey man lu bëri maa koy defal sama bopp bugutu woon ma def dara lu ma yëkkati rek lu ma yëkkati rek mu ne yaa bàyyi dinaa ko liggéey su ko defee ma ne ko yow da nga foog ne da ma bugg tooguloo bés boo demee sëyi man damay sonnaat il faut man may liggéey dina boole defar néeg dina boole fóot dina boole tooga suñu njaay su ma ko nee kaara def dara sax mu ne yaa dema toog nga noppale ko kon kooku moom mënuma koo fàtte may ñaan yàlla rek yàlla may ma xoli muñ moo ma ko mayoon moo ko jël ñi fekkal leen ci àjjanay firdawsi metti na de metti de waaye lu metti nag doomu aadama lay dal ndax du moom kenn laa ñaaka tamit waaye ku em ne moom nag moom kenn laa ko ñaaka ndax man ma daan am doom muy gaañu waaye da nga gis moom dem na ba mag ci suma loxo mu soog a gaañu man nag ba tey dafa mel ni ku tukki si man ndax waajaluma ko taaguwut ma yëguma demam xam naa ne nag dee dafay am moom bor bu set nag maa ngi koy jooy bor bu set maa ngi koy jooy waaye jooy bi tamit dafa ànd ak sant yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa ñàkk doomam toog rongo rot saaba yi di ko laaj na ko yow ki yàlla yóone mu ne leen yërmande lay jooy man tamit xëj na yërmande boobu mooy génnee suma rongoñ ma di ko sante yàlla ndax demam bi alhamdulillah su fekkoon ci loxo la nekkoon mënoon nga wax ne di nga dugg a génn mba ut ku la dimbale waaye comme yàlla mi la may moom moo ko jël te mayewut dafa able ndax nit bu la abalee ñëw jël si ko yàlla tamit bu la joxee jël ah danga koy sante yàlla ndax miinoon na ma meen boo xam ne man ñoom ñaar rek laa am doom yu dunda ñoom ñaar rek laa am doom yu dunda te miin na ma meen boo xam ne yàlla yonente bi ku nekk xam na ko ndax nu ma miinee noonu la miinee ku nekk moo tax demam bi du man kenn man maa ko yëg ñëpp a ko yëg ñëpp a yëg demam benn ñëpp ñoo ko yëg. daaw da xëy na deewul mun na am dina ñëwaat suma loxo loolu rek moo nekk suma xel bi ma toogee nii xëy na dafa nëbbatu rek waaye dina ñëw loolu rek laa dee xalaat bés bu ne waaw man si man dama foog ne deewul dina ñëw loolu rek laa dee nekk di xalaat nawet bi dafa ëpp loxo si man parce que li ma waroon a njëriñ yëpp. loolu laa dem toog gisatuma ko léegi moom rek moo su nekkoon suma taaw bu góor te loolu la doon rayante noonu. because xelaatuma woon ne suma doom dina dem baagu yi because ay broda sama fi góor ñu demut moom mu dem loolu moom a gën nag. man mbiri baagu yi moom neexut ma benn tey because suma doom des na ci xam nga ba pare ñeneen yi tamit des nañ si ñu bëree bëree bëri bëri luus seen xam nga seen famille si luus leen noonu ba pare ñëwuñ génn lañ doon uuti xam nga seen time waste seen mbokk yi toog fi ñoom it di dee ak xalaat yi du jeex ak naxar man moom daf ma naxari naxari trop moo tax mbiri baagwee bi still now man I don't support it really. ba ma déggee ne gaal gi kopp na fii ñu sax def ñu fekk ñu am programme benn ngénte fii ñu ñu dem foofu si guddi gi ñu ñëw fii jaaju kunda fii ñu amoon xew ñu ñëw daal di ñëw fekk man maa ngi fii ba ma jàpp julli. bi géexee jotee ma ne xaaral ma jaaba julli ma julli fii si perom dama julli ba salaatu rek mboose ñëw ne Binta ma ne ko naa mu ne ma ah gaali ñoom daba bi kañ la dem ma daal di ko wax ne ban la dem mu ne ma gaali ñoom Amadou bi nag ma daal ko wax bés bi mu dem mu ne ma kon gaali ñoom Amadou bi ñoo ko du bu ñoom daba bi ndaxte bu ñoom daba bi dañ wax ne de egg na waaw kon nga xam ne bu ñoom Amadou bi la mu ne ma hee ma ko dafa am gaal bu ko ma waaw sa laa jóg rox tamit jóg moom it tànkaam yi dee mu ne ma Binta demal si alaaj fay nga laajte lu set moo gën si laa dem laaj laajte dem si alaaj fay si essentiel ma ne ko alaaj fay dafa ak gaal gu ko ba mu ne ma loolu la ñuy dégg nii de waaye ñaari gaal yi bee na la ci ndaxte gaal gi ñu doon wax ni eega na eegut ñaari gaal yi daal na la ci waaw dañu wax ni gaal yi moo foppi daal moom la ma ne ko ah ma ne ko kon de ñoom daba dee nañ waaw noonu laa ko jàppee dee na rek laa doon jàpp mujjantel yi benn nit ñu naan mbinta ñal de daba ñii naan daba dee na ñii naan daba yu dafa sonn xam nga loolu moo tax ñi naan daba dee na ñi naan daba de ah man it man it ma toog rek jàpp si yàlla mujjantel yi nit yi di ñëw di jàll si waaw ku ñëw ne ma tegal palaat ñu jàllee sa doom dee na man it ma teg palaat ñuy jàlle waaye dafa metti woon metti na trop waaw waaw dafa metti benn tey kenn mënu koo fàtte loo dee bi kenn mënu koo fàtte bi abadan bala nga doon bokk si gaal gi naka nga gaal waaw comme like ñun friends moom booy dañ dee mën a yëg gaal information bi daw man time bu ñoo plan affaire yi gaal yi nag nekkuma woon baara maa ngi woon komba maa ngi liggéey but after si dama ko dégga si booy yi man tam ma ne bàyyi ma ñëw ma participer musta nekka comme suma plan nag but at boobu moom dama jëloon décision daal bokka si gaal yi rek so friends yi laa ko dégga ñu ko wax ma jot si man tam ma bokka si lan moo la motivate ba nga bugg a dem baag wi waaw comme dama gis ne tamit like fii dafa xala slow so dama believe ne daal man ñu ma gis suma friends yu ma gis yëpp dañ dem Europe ñu meeg ko ñu ñëwaat so man tamit dama jàppane ne like ñooy nuñ def bi am man tam su ma defee noonu ba dugg Europe mun naa koo meeg man tamit ma ñëw back home ma ñëw jéem a setul yow bi nga doon dem da nga xaalis. waaw fay naa xaalis. ñaata nga fay. fay naa thirty doon fay si kan nga ko fay. si Ousmane Bakhoum si boppam laa fay. kan mooy Ousmane Bakhoum. moom moo nekkoon like mbir mi daal comme moom moo ekkati gaal bi daal Ousmane Bakhoum baara la dëkka waaw ñëpp xamee ko si Mouveau waaw si moom laa fay baara fii nii. metti lool waaye moom muñ rek. xamne yalla mako ma yalla jël nako ma delo sama xel si yalla bis bob kera fi ñu don joy fi ma len don yëkëti suñu wa kër ñëpp daanu ci suuf bis bob kera metti na way nak comme ni ma jale ni sax kera yalla dimbalé na ma yalla mo ñëk ci sama xol bi ci sama xol bi ma sante yalla ci lool sante na ci yalla bu mbeuri ndax xam na nu ma mënoon a def fi kere waaye yalla dimbalé na ma dé ba sa kanam yalla suñu wa kër yi ma leen doon yëkëti fi ba bis yalla tay bi su ko suma dama koy ñaanal jox yalla mbir mi yalla lu ko neex rek lay def te du seetaan kenn lepp lu la tek nga muñ ko dana la wuta leneen lu ko gën kon nag yàlla nañ ànd ak dimbalal yalla lay ñaan di gërëm suñu suñu wa kër yi yëpp di leen ñaanal ñoom itam ndax bi bi tis bi xamé ñom ñep ko bok ak man ak bokkami du du neegu bay du neegu nday fi ñep daanu ci suuf di yuuxu parce que nit ñi mako ko gënoon bëgg motax tax ma muñal yalla japp ci yalla and ak yalla, ba tay suma rongo yootut ma xamna mbiri yalla la xamna yalla mo mo leen bind ta mo leen yobbu su leen soxlay daf leen di jël ken mo ci dara ah ta yalla fu lo fu lu ñoo ya yàlla foofu la waxoon ne foofu la ñoo dee ji lu loolu moo tax boobu mënoon nañoo dem ñu ag ci jamm because gal ya naa dem ag ci jamm du ben gal du ñaari gal gal yi dem aga bari na trop bari na trop ga yàgg ya ga na wa gal tam tam na kep way bi loolu amé mom wax deug yalla dama and ak yalla nit yi bañ ñëwee fi daanu ci bi kër gi ma leen di ma leen do ñëgati ne bay bay leen ci yuhu yi li mbiri yalla la xam nga yàlla moo ko dogal soo mënoon naa tamit daf tamit ngay àggal si jàmm xam nga soo ngay àggal si jàmm tamit mu dimbale waa mi am fa loolu loolu xam nga loolu yëpp daal mënoon na ko waaye lii la yàlla daf nañ xam ne daal lii yàlla daf dañu ànd ak yàlla si loolu soo ñun ñëpp yàlla moo ñu binda ku nekk rek sa bis nga fay xaar waaw ku nekk rek sa bis nga fay xaar because xam mooy loolu soo ñun ñëpp yàlla moo ñu binda. gaal bi am na benn gaal bi bu dem am na problème ñu waa ah, du boobu bu yàgg bi ma ko déedéet ñoo mane ne baara baara baara naka la wooyee bu yàgg naka la wooyee bu yàgg te baara la ñu wax suma doom dee na dafa dee ci géej bul kenn nëbatu ma ne nii la nii la digga wa nit rek. Tiira bi mu dem maa ngi xalaat maa ngi xalaat maa ngi xalaat bee bu ba ñëw fii ma ne ma dañu wa yegg na ma ne ko eh, puusul fii ba yegg man dama diggati suma yaram bi dégg na ma ne ko piira yegut bu yeggee dafay kool kool ma man yaayam la dafay kool kool ma naka la waaye dafa yegg ñu wax ñoom yegg na nga ne bulu xalaat du ma ko def. ci loolu la si suba si rek acca baara yëpp tas baara yëpp tas ma ne noppil noppil dañu am na ñu nekkati hôpital bi tiira foofu la bokka ma ne ko hey bàyyi ma ataalaam yëpp génn na fii naka la nekkee ci hôpital ñu bind yëpp naka la ne batu ngeewa ma mu fii ne baaxut ngeen mbalal ma rek ma yem fofu su wala bi tang bi ti da de mangi ngi xalaat be léegi bu tere su ma dem ti mom dek du ma mun a nelaw damay di di joy ti lal bi ken du ko non la bi galu bi ñu dem benen gal bi tamit toppa ci suñu gannaaw ñoom ñaar ñu ngi ebbe fess ebe, ebbe ñu yobu ko ci galu mag bi so second gal bi eh, taat gaal bi bi ma demee ma gis nit ñi ñu ngi xawa bari ci biir gal bi ma ne gal bi du taf gis nga si gal gaal wu nunu. si la sumol ak nar si lañ jom si ñew yek ci kaw Nyom ñoom sa demoon nañ neali demoon nañ bay bu ga daanu sama ma leen téye xiical leen dugal leen si biir géej bi si biir gaal bi ka sori nañ ñu ngi si biir géej bi yaa gis waaw su lañ nekkee noonu su lañ nekkee noonu di dem. léegi yow lan moo la motivé ba nga bugg a dem baag bi ba nga buggoon a dem baag. waaw baag boobu daal leen la rek because xam nañ ne Europe ak Afrique nekkuñ benn soo fa demee di nga mun a sa life dina mun a change easily ba pare tamit lu nekkoon sa moyen bi pour nga dimbale sa famille bi tamit dafa yomba comme fii dafa ubalam miti fii da nga gis benn nit ah, twelve people si ronam lañ nekk kooku dafa liggéey ba bugg a dee dara du feeñ waaye bu nekkee Europe bi la boobu noonu soo amee benn thousand si soo ko wéccee fii nii yaa ngi am ay thousand thousand gis nga so di nga mun a fil di gaab lu bari di nga ko mun a toppatoo soo. ñu dellusiwaat si mbirum gaal bi ba tey mën nga ñaata nit moo nekkoon si biir gaal. non actuellement si biir gaal bi daal moom. man ñun bi gaal bi amee problème sax laa mun a xayma laa mun a xayma sax nit yi ñu nekkoon ci gaal bi waaw because ñun ñun survivors ñun demoon nañ 86 waaw. gaal bi këpp na naka la meloon ci ni dama wik def dara waat.

nu gisa ko gisaat daal. doo dee sa hel dem ci mom wala nga nama moment sing de tok di waxtaan ak hmm dama dee dama ko nama kay. wa ma lan nga nama ma moom. waxaam yi kan mo len don fayal fe waaw. te léegi kan moo leen nekk si onda kan ngeen nekk. sama After six days, I'm the first person he called. Said I one boat both capture. I said, what are you saying? Yeah, nobody knows. I sit down here. I said, what are you saying? He said, he's telling me the truth. I said, I don't know what I'm saying there. I shout. I call, I call Penda. I say, Penda, ah, come and listen what Ili is telling me. Understand? Penda say, okay, it's not true. I say, it's true. After we left this, we started hearing everything. The next day, we heard the news that she's the monk that left. I couldn't bear it. After I called Europe, the next day, we go to the place, me and Emma, we found out that she's a monk. I cannot bear myself. When I would say that, I cannot be what I am today. She's the one who makes what I am. I lose I lose everything. I lose everything in my life. even though this company I'm because sometimes even though anything okay, you're sister, step back, let's do our things. And she's reasoning anywhere we go. gaal bi bu ah si biir gaal bi la ma fekk ma naa suma xarit yi gaal bi dafa këpp suñ kaw dañ dem bay costé pour delsi si la gaal bi daanu mu ritane si la këpp suñ kaw balaa gaal bi doon këpp yow amuloo woon benn sign benn gisuloo woon benn sign ne gaal bi dafa bëggoon a këpp. déedéet heure boobu gaal bi moom bëggoon a këpp ni time boobu dañ dem ba Spain ba egga ñu dellusiwaat buñ dellusee ba si yoon bi ñu ne sa gëm léegi sonn nañ kaa leen dem dellu buñ ñëwee ba Mauritanie bu ñuy costa si la gaal bi daanu mu depp suñ kaw am ñu génn nag ñu dem ñun ñu fa des ñu nekk si ron gaal bi. man bu gaal bu këppoo dama xamoon. after si la ma Aliou seen si biir ndox bi Aliou moom ma génnee ak ñoom sol ñu ñoo ma dimbale ñu génnee ma si biti di ma bës di ma bës ba bañ xam ne kii deewit mu ngee nokki si lañ ma may ma naan after ñu yóbbu ma xool ñu yóbbu ma si lopitaan bi. gaal bi ba mu koppoo ak diggante bu nit ñi di génna 30 minutes la matu sax 30 minutes laa ko mën a waxee because su nekkee ñoom ñoo nañ ba génna man dama ne suma xalaat bu gaata balaa ñu ko balaa ñu leen di denc suul kon waroon nañ leen di yóbbu si lopitaan bi ñu ceeg lañ i da dañ dee mbaa dañ dem kooma mala dañ xom loolu yëpp mën naa nekk soo su nekkee dañ dee a ah, kenn mënu si dara parce que kullu kullu nafsin zaa'iqatul mawt bakkan bu ñam duna dina man musa ñam dee ngeen denca lañ sanga lañ suul lañ si suul bu rafet ah buñ jógee buñ naka ambassadeur buñ jógee Gambia nekka foofu bu mu egsee waxut ñu dara because lu ma wax kenn déggu ko that time man maa ngi maa ngi si condition bu métti sax because that time suma boppa bi mu ngi amoon problème so bu ma laajtee dañ ne ambassadeur bi dafa wax ne mu ngi ñëw pour yóbbu ñu ne ko waaw aftaroon sa sénégalais yi seen mbokk yi ñëw ñu ne ana suñ doomi réew yi si jóg ñu laaj lañ ñu expliqué nu affaire bi demee ñu yóbbu lañ wutal leen lu baax yóbbu lañ so ñun Gambian si ñu ñooy mbaam yu dee yi ñun lañ jël teg ñu si loo xam ne mooy loolu boos yu tànga benn Gambian escorte ay naar ñooñu escorte ba Mauritanie sëñ bo booda bi ñu war a jëlee boot bi pour dem Rosso Sénégal bu ñu escorté ba foofu gaal ya ah, gaay boppam ñoo dawal ba Rosso Sénégal buñ fa àggee ku nekk di laajte ndax bàyyiwuñ dara ñu ne noono bàyyiwuñ dara because joxuñu lekk joxuñu naan ak métiwaay bu buñ ñëwee ak naxar xol buñ nar a ñëwee tudes ñun ko am siyon yoon bi xale e di wacha di ñaan sarax di tu si maasa yi pour am lañ lekka mbaaja yu IOM joxe ñu jël ko di ko joxe di ko lekka di ko jël di ko jaay pour am lañ lekka kon xam nga lo xam la lu me me metti si aduna mo nekk lool man bu gal gi waré ko sa because of that day dafa melni mon man dama feel suma yaram ni gal gi dafa war ko ko you know Kosodama eu tire lazy. jóguma fu ma toog you know ba Mahmoud moom moo wax ne baaba depuis suba bu nga ewoo nanguwuloo jóg doo jóg nga stress sa tànk yi because of nga gaal gi sax mu ngi bugg a ñëw coste si am tàmbuwu laa jóg you know taxaw waaye comme man bu gaal gi di dem bay lifin you know bay am accident daf ma beeta because of beeta na ma comme si benn boor bi moo nekk ne foog ma ne gaal gi after façon accident boobu noonu la moo ñëw am because maa ngi toog nag man comforté wu ma fu ñu waroon a costé waaye am na yeneen gaal yu ñu gis ñaari gaal yoo xam ne ni ñoo ñu woon ne ne xam fii nañ fi mën a costé waaye man suma boppa although xaw ma géej nag bu baax yu waaye man suma boppa xam naa ne fii du costé kaay te maa ngi ko doon wax am na benn boy sénégalais mun na ma doy seede biiru maa ngi wax ne boy mun na ma waaw mun na ko boy fii du costé kaay de ah na ma boy gars yi ñu ne ñu jege boy boy ko wax su jegee su baaxee ñu costé léegi nañ bàyyi mu jege rek su bàyyi ñu ko see baax mu ne ko booy fii kuulut booy xam nga soo si biir loolu fii mu waa booy doo biru biru Apa apapa simeeku waaye man mënumaa simeeku because of man dama dama meloon ni ku ba that moment you know after man gaal gi bu am accident daf ma beeta man dama toog rek gis suma si biir ndox bi you know bu gaal ame accident because of guidance ani bumbi, bumbi longkar bi lonkaar dem ba so capitaine bi ku doon lifin nii ku doon dawal ah, gaal bi dat moment mu ngi doon jéem a taraay pour ton gaal bi soo bu mu taraayee pour ton gaal bi bala mu ton gis nga bu gaal gi demee ba joxe wet fekk gaal bi xam nga mu ngi sànni lonkaar bi nii boppa taat baa ngi féete nii so muy taraay pour toon affaire yi gën a mun a jot si biti si biir toon bi foofu lañ toog rek ñu gisee very big wave kanax bu rëy buy ñëw so am ñu dawee saay yu hey kanax bi nii nii ñëpp daw am ñu tawee ñu nekkoon boor bi tawee nii ma toog gis suma boppa si suuf yu no si biir géej gi gaal gaa ngi dëpp suñ kaw afta man si laa def nii sax man nuuru am nga rooceeku nii maa ngi gis gaal gi nu moo wàccee ni ma bon man bu ma génn maa ngi rooceeku gaal waaw waaye lu gën a saat si dat moment moo nekk comme ñu nekkoon si digg gaal gi bu gaal gi dina am accident my friend it really crazy because of dañ téye wante amul mun nga fee amuloo mën fay xam nga after gars yi ñëwul waaw dee dee bu métti bi ko sofu leen wante ba pare amuñ kenn ku la naa dimbale gaal gaa ngi dëpp seen kaw so loolu it was really man really xam nga nga gis ay jigéen xale bu ndaw xam nga koo xam ne nii booy ñu ngi koo bool xam nga mu war a ñëw noonu booy lab noonu si géej yi booy kenn mënu si dara because of foofu dafa nekkoon position boo xam ne nii soo génnee yow sa boppa dang day xam ne ne ah yow yàlla la génne de du doomi adama de parce que place bi am na ñu fa des ñoo xam ne ni ñoo la daxa fee fuuf te ñu ngi des ci biir géej gi foofu noonu. xam kër gi yëpp ñoo dugg benn gaal fukki xale fukki xale ñoo bokk ci kër gi dem ci gaal gi ñëpp ñu des ci ndox mi ñu ay maas. fukki xale gi. waaw kër gi. xam nga kër gi dafa rëy fii ba ngay dem ca kaba yëpp ci génn kër gi la ba ngay dem ba ca. tàng ba bool ba waaw ci famille Ndiayeen bi la fii nii kër kii xelam dem na man suma ñaari dem ci Ndiaye maa ngi xelam nga dem ci ma rakk bopp loolu lañ ko ba ak kër ga léegi itam ko moom du waa Ndiayeen moom xale bu fi newoon la lool ne fi gars yi mu ànd ñoom dem. man si ba gaal yi sax man gars dem nañ ba nii daal gëstu nañ ko ay fan daal ba bés ba la ñuy saraxas sax man si naaw ba tey mënumaa gëm ne sax ne booy bi dee na daal. te kita daf ma ñëwee kaw daf ma wofalaabu sonal sax ah xanaa toog toog rek di xalaat xalaat bu ànd ak naxar métit ndax soo juree doom li li sa bugg-bugg mooy mu mu tekki bi mën laa jëriñ dara jiring ay waay juróom dara waaye mbir mu ne nag na ci yàlla dogal rek loola moo cay am mosul maa woon benn benn jafe-jafe daal wax dëgg yàlla. liggéey ñi nga xam ne pare nañoo dem itamit parce li yoon yoon lii moom dafa is is confusing mënuloo wax ne yoon bi baaxut mënuloo wax ne yoon bi baax because ñeneen ñi ñu ngi dem ñu ngi ñeneen ñaa ngay dem di am failures waaye ku ci dem yi tamit soo demee nga góor góorlu sa kéemtalaay kàttan loo am ñi ngi fi bàyyi nga dimbale leen waaw because kilifa yi soo gisee ñuy génnee seen xaalis yu bëri yi di ko dugal ci xale yi pour ñu dem ñu bëri nag ñoo dee encourage seen doom yi pour ñu dem de nekkul ne interest yi xale yi rek la kilifa yu bëri ñooy encourage seen doom yi man na suma doom encourage ma ko because aw ma dara waaw awma ma soo du ma encourage suma benn doom pour mu dem waaw so ki ci dem ni des ci moom moom li moo lijantil boppam xaalisam def yëppam dem waaw yàgg naa bëgg a dem moom waaye bu waxee rek ma tare ak xale yi xam nga lu ñuy def doo ko yëg waaw amoon na lum jàpp lu mënoon a muñee waaw waaye daal lii la yàlla dogal ma waaye gaal gi këpp na ñu ne ma yaa juje musi gaal gi ma ne leen dee parce que mos tasangu géej pique-nique sa su ko demoon ak moromam yi ci biti lay toog xale yi di ko riitee ndoxi géej bi muy daw moo tax bi ma ko déggee ma ne lii gaa jooju du jóg ñemewut waaw. gis nañ ne gars yi am nañ at depuis loolu bu mu xapp ne léegi loolu yow lan la la fàttali. naa fàttali ma lu metti wit bi yëpp suma yaram bi neewut ngir fàttali ko suma doom bi ñu ma seen na taalam yi maa ngi gis na taalam yi si status yi xale yi Facebook bi. mu indil ma soog bu metti sax waat. Mm. bis bi mu amee at sax keroog def nañ kaameel ñu jàngal leen ñoom ñëpp ñaanal leen parce que lu mot fukki xale yu góor si benn famille tax xam nga ne loolu dana métti torop taay bu del see moom wala boo toogee ba sa xel daj ko foog dana métti. am yërmande si waajuram koo xam ne mosuloo weranteeg moom. bu yërmande ag dom ci ag ci bay rek àggoon fa sumay wax si mom lu yag sax suma ronko ñu nak ni amale foofu wax da metti lol metti lol lool waaye ñu rek ci loxol yalla yalla rek lañ fa sës bi yégee ne gal gi kepuna rek ñun ñep dañ d'accord rek ne xalé yi dee nañ parce que xalé yi mënuñ ndox ñu nak ñu gëm ne xalé yi dee nañ ñu gëm ne yalla ko dogal ñun xam nañ gëm-gëm bu xem ne keroog lañ gëm ne yàlla moo ko dogal fii la yàlla xemale seeni bakkan lii la yàlla waxoon ne ci la ñuy dem ñu ñaanal leen keroog bis boobu lañ leen ñaanal gëm ne lii mbiram yàlla la yàlla ko dogal waaw yàlla noonu si ndox mi la ñuy des yàlla noonu si tukki la ñuy dem ñu nangu daal li yàlla dogal waaw loolu yëpp mbiram yàlla la ñu nangu la yàlla dogal fañ bëggoon a àgg ñoom ñoo ko xam waajur yi xam nañ ne fañ bëggoon a àgg fu sori ci yaay la fu sori ci baay la dalal seeni waajur rek moo leen taxoon a jóg li yàlla dogal mu dogal ko ñu ngi leen di ñaanal yal na àjjana seen kër yépp luñ ni ci seen ci seen yaay baay yal na ko yàlla defal seen yaay ak seen baay yi ju rafet lañ xamoon ci seeni kilifa loolu moo leen taxoon a jóg ñu ngi leen di ñaanal nag yal na àjjana seen kër na suuf sedd ci seen kaw su dara jaay sang bu tedd bi loolu lañ leen di ñaanal métti nañu lool nag ya wax dëgg yàlla ya waaye nag yàlla mo mooy dogal mo seet lu ko neex rek mu def ko waaw. xanaa muñu rek di sant yàlla ya mooy li ma la wax rek xam ne yàlla moo dorate, ko mayoon moo ko jël su yàlla soxlaa nga soxla yaay ñàkk waaye bés yàlla du rate la ko damay nangu na damay nangu xanaa kuma xam nga ne bon soo ñàkkee lu niñu nii ñu sax nekk lu la neex yàlla rek moo ko def waaye bu doon man rek wala ñu dem parce que dama ko jàmm ba sonn na ko ba ñaata fan yu sa sax nekkul dama mujjee kool koo xam ne nit nga rek kool naa la boole laa yu sa sax waaye mu dem rek la gisoon boobu dem rek la gisoon te xam na ne ma wóor na ko ne man maa ngi denc xaalis loolu moo ko dugaloon si loolu maay bañ naka léegi comme yow loolu nga bëgg ay naa ba tay nga bañ ñu jàpp yàlla yàlla baax na li moom si dugaloon parce que wi xoolal xale yi nga xam ne seen yaay yëgul leen dem nañ kenn xamul ku leen paasal te tàgguñ sax seen yaay waaye moom wax dëgg na yàlla tàggoo na te man mii maa ko paasal yàlla nag xëy na moo tuddoon loolu waaye du daw parce que moom tam moo gisoon muy am em boobu pour jàppale ma rek la waaye xam nga ku xamoon ne soo demee doo ñëw doo si bokk yàlla kenn yàlla rek xam kenn xamul. moom laa yaakaaroon ñëw na des ci ndox bi nu may def. nga toog la jàpp ci yàlla xanaa di leen di ñaanal fi ñu nekk gënal leen fi fi fi fi jóge dem si aljana yu gën a kawe man kena aw ma naxar bi ñun waa Baara yëpp a ko bokk nekkut ne man kenn rek la xanaa di leen di ñaanal. 27 novembre ah démb dafa nekkoon bés boo xam ne bés bu jaxla woon biir Baara because su bés bi ñëwee moo nekk bés boo xam ne comme ku nekk gëj naa gis yaayam si la gëj a gis yaayam si la gëj a gis doomam si la gëj gis baayam si la gëj a gis familleem bés bés boo xam ne la kenn waru koo fàtte benn Gambien waru ko woon a on bi nag yàlla def na ñaan nañ si donation te incha allah bëgg ñëw wàccal ga ay caméra andi novembre décembre mm-hmm. ma ko mun a fàtte de xanaa kay di muñ rek waaye pour ma fàtte ko ba noonu noonu du ma xel de léegoo léeg suma xel def dee dem toog di ko xelaat waaye xamuloo naka ngay def xanaa nga muñ rek sa jàpp si yàlla. children. Amate. parce que Younouss amoon yar la bañ na ko ba def ma defoon comme soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu kay xaalis bu maga bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fi ci bir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ci ñetti fuk ak ci bir Afrika ngir jox leen melaway yu gën ci jotum xaalis bi nga xam ne du ko leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mëna bindu ci suñu app bi di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mëna a ci suñu Money Transfer services yi ay back rek la ak Supersonics لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، بعد ولو لمر لالو أني جيب لالو برنامج من كنالو كان ولم من يندكك إن شاء الله وبرنامج من كاسم بالينا ولم انت بامبو دمفا أني على جبران با ماما كتو seattle washington ata ɓe vancouva oɓe nanaliyen lungo men waleɓe kala juma lungo luti e, juma lungo wuraro janna wato tala lulunin tala wuraro kada tala woro e, allah moyde kuñimmaka na lafida ka juuɓe fanan albe tala min do walla mo gambiyan talance tv ala barika asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. am na lu ñu leen andil lu bees tàq loolu mooy lan diggante diggante nekk programme ak boromam. dinañ dem si biir office yi. diggante nit ki ak yonantu. dinañ génn réew mi. diggante nit ki sax ak moromam bàyyi daam am na ko tiit na lool ci diggante ma boromam mbaa du yàqu yi. diggante du fi yàqu diggante dina ko defar fii. ndax nag. réeroo amul daal waaye ñàkk waxtaan am bu ñu waxtaanee gindandikoo programme boobu nag ana ñan ñoo koy amal. Mouhamadou Lamine Kane ak Mansour ànda ak xaritam Baye Dame juuf ñoo def diggante. Gambian TV. Mhm. ñoo leen di indil programme bu mag boobu leen. dinañ ko indi ajuma bu nekk bu juróom-ñetti waxtu jotee ba juróom-ñeenti waxtu ak genn wàll. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. am na lu ñu leen indil lu bees tàq loola mooy lan. diggante diggante nekk programme boo xam ne dafa jóg pour defar diggante yi. diggante dinañ waxtaanee nag si biir kër yi. diggante nit ki ak boroomam. dinañ dem si biir office yi. diggante nit ki ak yonantu. dinañ génn réew mi. diggante nit ki sax ak moroomam bàyyi daam am na ko tiit na lool ci diggante ma boroomam mbaa du yàqu yi. diggante du fi yàqu diggante dina ko defar fii. ndax nag réeroo amul daal. waaye ñàkk a waxtaan a am bu ñu waxtaan waxtaanee gindandikoo programme boobu nag ana ñan ñoo koy amal. Mouhamadou Lamine Kane Al Mansour ànd ak xaritam Baye Dame Diouf ñooy def diggante. Gambian Talents TV. Mhm. ñoo leen di indil programme bu mag boobu leen